daanaka ñi fi teewu tey yëpp ñii ay partenaire u FEMAD lañ muy ay association yu bëgg a ñëw xam li ñuy def ànd ak ñun liggéey ñii ay membre FEMAD lañ bu yàgg lu ñu xewle ñu ngi fi ñii ay membre bureau ñoo xam ne ñooy tax FEMAD egsi fii tey te loolu dafa war ñu wax ko ndax dafa important ngeen xam ne xëy na man su su doon man rek du am parce que ba muy xew sax baan dëkkuma fi maa ngi woon Amérique mais ba ñu xalaatee vision ànd dafa am ñu ci commencement ba na xam leen c'est important dafa am ñu nga xam tamit dañuy sacrifié wu bu cotisation amul ñoo koy bu xaalis amul ñoo koy bu nit ñëwul ñoo koy def ci biir añ bi nag bëgguma rek mu nekk ne dañuy toog lekk def comme les américains di def toog ku nekk ne ki nga kan ak c'est important ndax am na ñu fi ñëw bëgg a dégg li ñuy liggéey xëy na keneen ku wax ak ñoom dina leen ne ah man de Touba laa jóge ndax am nañ fi délégation bu jógee FEMA Touba am nañ fi ñu jógee FEMA Thiès am na ñoo xam ne ay partenaires soxna Astou Mbacké bu sëñ Abdoulaye yónnee na fi ñaari nit ñu ngi ñi dinañ leen may ñu wax ci kanam fekk ñeneen ñi ñëw dañ ne woon dañuy bàyyi ba añ ba pare fekk ñu bari gën a ñëw ñu mën a def présentation mais ma leen di xamal ne ñiy toog fii yëpp tey du dañoo toog ci table bi parce que ñoom ñoo seq femaat am na ñu toogul ci taable bi te ci femaat la ñu bokk ba ñu wootee di ko sos dafa am ñu jóg ne ñun jéemu ñoo xam man jour bi ma njëkkee ñëw senegal de waxu femaat yaa ma jéejoo ngi nii du ma bàyyi ma fen Adja Ndioro Gueye madame Diagne Nabou Gningue Nadoura Dadi Mbacké ñoom ñëpp dañ ma ne ñun xamuñu sax li ngay woote lan nga mais comme ñun xalaat nañ ne yow affaire liggéey la rek ñun ñu ngi ci kañ ngay def assemblée générale ñoom ñëpp ñu bàyyi lépp lu ñuy def marem gay buma limé damay juum mais dama bëgg ngeen xamné du man ma xalaat FEMAD wala ñeneen ay nit ñoo tok waxtaanee ko doxalee ko ba fi tay ñu bëgg and ànd jàppale moo tax yàlla dinañu jappalé inshallah donc dama bëgg ci añ bi ngeen préparé wu ci lolu parce que amna ko len fi wo xeyna du nek membre mais dafa ñëw pour nek membre ben wala mu ñëw pour nek partenaire wala mu ñëw pour jappalé ñu muy comme suñu càmmiñ bi seigne Moustapha nga xamné man mënu ma ko sant ndax ñu bëri buñ may xam di xam FEMAD femme africaine moderne bañ ma invité woon la ba may wax jigéen ñi ma romboon Touba di ñuy jaay bisaab ak buy moom mi moo taxaw 2STV ak Nadoura mi nga xam ne du ma ne sama xarit la sama rakk la moom Ndiol Guèye dañu bañ dama ñun ay seex la ñuy wootantee référence sama yaay la tey def naa ñaari enregistrement démb yoo xam ne dama koo jooy ndax su ma xalaatee sama yaay li toujours li may wax mooy toogal fii nga jàng te man li may jàng moom xamu ci dara mais saa yi ma ko ne yaay danga may ne rek toogal jàng yow yaa ngi nekk si sa marché di def yeneen mu ne ma jàngal ndax damaa bëgg nga am bureau bu sedd guy moo gën lii ma nekkee kon mooy sama référence donc loolu dama koy wax toujours mais daal añ bi dama bëgg ñu defaale si réseautage ndax FEMAD réseau la boo xam ne macha allah ñu bari jóge nañ fa sori ñëw te après midi bi bu ñu defee présentation suñu caamiñ bi lim ñuy wan na añ bi gaaw nag mbayeen yi moom na gaaw bu ñu paree ci moom dañuy dem ci benn jeune entrepreneur muy Maimouna Gueye

seen carax la ñuy sol banque yi di am ay immeuble yu mag kon ñun nañu taxaw ñu xalaat ndax ñun mënuñoo denc benn 1000 francs par par weer ëllëg ñu lebal suñu bopp loolu mooy femaat donc loolu rek laa ci bëggoon a sànni balaa am ñu dem parce que xam naa programme yi bëri na mais même boo leen di dem ngeen xam ne loolu dina fi nekk te liñ fi tënk waxtaanee ko war ko def yëpp ñëpp dinañ ci jot loolu moo taxoon